ami site internet net bi tv dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar la ci gën a fës dañ koy door rek kàddu nga xamante ne Seydi Gassama daal koy yëglati moom nag ma ngay dànkaafu bu ñi nga xamante ne ñoom ñooy maire ba njuutum réew mi Macky Sall daal di li nga xamante ne nag moom mooy seen sécurité la mu daal di de défense et de sécurité lu leen war rek mooy sàmm kaaraange askan wi waaye nag bu benn maire di jéem a def li nga xamante ne nag moom mooy recrute jëmale ko ci nag li nga xamante ne nag ñoom ñooy yooyu les forces de l'ordre ndax li nga xamante ne nag moom mooy ay nervi loolu ay affaire de privé la kon nag ñoom seen yoon nekku ci élection yi mbir mi nag mbirum responsable la waaye nag violation yi nga xamante rek nam mooy àq ak yelleefu doomu aadama te loolu yëpp nag mën na saxal jusque su Sénégal moom Seydi Gassama nag ma ngay dankaafu bu baax nag Macky Sall ak ñenn ci député yi ak ñenn ci maire yi nga xamante rek pare nañ pour recruter du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat yeneen i jotaay xabaar bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification bi ngir amaat yeneen i info jërë ngeen jëf ci teewlu bi